tax na nag danañu jël léegi liggéey boobu yëpp def ko ci xarala yu bees yi maanaam benn géoportail boo xam ne bii képp koo xam ne kii bëgg ngaa jënd kër wala da bëgg nga dem ci lotissement wala maire bu bëgg a def lotissement da nga ko xool ne su amee taw boo xam ne bii fanweeri at lu nekk lay ñëw nan lay demee yan mooy inondé wala déet liggéey bi nag projet bu mag la bu ministère bi def boo xam ne bii fukki milliards la liggéey bi yëpp parce que am na ci benn radar boo xam ne bi dañ ko def jam ñaajo radar boobu euh, mois de juin bi normalement juin 2024 dana dana yegg si liggéey bi dana dana pare def cee bokk waaye li nga xam ne nag mooy xayma bii ñu def ci cartographie bi ñu koy wax cartographie moom ci 10 milliards yooyu ñeenti milliards la ci jël te niñ ko waxee guléet liggéey bi ñu koy def ci réewu Afrique Sénégal mooy réew bi nga xam ne moom moo ko njëkk a def te loolu li nga xam ne président Macky Sall bëgg na ko ñu bañ a nekk rek di di di xeex inondation waaye prévoir inondation ki teeru ko loolu tax ñu def liggéey bi